seexan na ban yëg-yëg nga wax dëgg ko bëgg dafa bëgg ma bëgg ko na def na ni kaay nekk sa xarit ah mu nekk sama xarit eh dégg bu ah, ma ngi naan ko biir mu ne ma déedéet dama nga toog ma tooguma si ma tooguma si biir dama taxaw assisté la ba bi ma bi ma la gisee maa kontaan xam ko gisee sama bi sama xol day seetlu waaw parce que moom dañu yàgg nag depuis depuis gunaas bu njëkk ba ba pare dañ doon faral di waxtaan lu bëri ñu ciy waxtaan man ak moom bi ñuy génnandoo man moom bokk na ci ñaari artistes yi njëkk génn ñu ci man bi ma moom mu génn bokkoon nañ ci artistes yi nga xam ne ñoo njëkk a ñëpp di waxtaanee macha allah nga ñàpp mu ñëw waaw mu ñëw nag euh, trouvé macha allah ba pare dina dañu wootantee à travers benn groupe bu ñu bokkoon al solidarité ñi ci woowantee ba loolu laa bi moom la ñuy wootantee suñu doom yi rawantee trois mois comme comme bébé Leyla Rasoul ak Mame Diarra ñoom tamit ay jumelles lañu macha allah mais kontaan naa ci ñëw bi mu ñëw moom duñ ko gis mu génn lu bari waaw tey mu ñëwal la nii damay kontaan pourtant noonu laa mel bu ma li may dem xew bariwul mais moom xew xewlee damay dem barke Serigne Touba tey sama yaay rek daf ko wax bu may sëy dafa toog sama kër ba fajar yóbbu ma ba sama biir néeg toog xam nga loolu ba fajar ba ñëpp dem kon loolu man su ma ñëwul nekk nit ku baax Daara nit ku baax la nit koo xamante ne li muy joué sax melul noonu boo toogee ak moom ndax boo toogee sax day waxam day wàññeeku dafay sëbi nit la ku am sutura nit la ku am teranga donc nag dañ koy ñaanal de belay laa yàlla na màgg ba dimbali képp ku ci xaj ci barke Nabil Moustapha yàlla bàyyi ko jëkkëram ah, ak bépp bébé ak maam Diarra jumelaw temps yi buzz bi bari na ci internet wax ji sa yàlla